arbitre baa ngi noonu di wax ñaari mbëri dox ci diggante Mor Kang Kang Boy Yeumbeul ndeysaan boobu mooy combat spécial bi il est 19 h minutes Mor Kang Kang ngeen jàkkaar lool Boy Yeumbeul moo wan ginnaaw ndeysaan arbitre baa ngi waaj a sifflé laaj na ay siisam ndeysaan laaj na ma ngay xool gauche arbitre bi xool na droite juge yi nañ ko pare na laaj na kenn sifflé na mbokk yi Boy Yeumbeul ak Mor Kang Kang Mor Kang Kang ngeen jàkkaar lool Boy moo la woon ginnaaw ngemboo ngemb lu vert li ñoom ñaar taxawaay bi baax na de. waaw ñoom ñaar taxawaay bi baax na mais boo xool ki nga xamante ni mooy moo Kang moo xaw a ëpp taxawaay kii di Boy Yeumbeul waaye loo ci mën a dégg daal mooy bàyyi ji li ñaari ndaanaan la ñu boole. bu combat bi yàggee nga gis bëre bu neex te bëre dina fi feeñ ci ñoom ñaar. ndeysaan ñaari xale lañ yoo xamante ni combat bu neex la kii yëmbal la jugee kii bu jugee Medina dañuy jóg Bawol dañuy jóg ndeysaan waa Colobane Gueule Tapée gépp dañuy ànd ak moom mooy Mor Kankang bu bàkkoo mu neex su bëree mu neex. Mor Kankang nee na ma dinaa ko wane dëkku fi. ñii nga fi gis ñëpp dëkk ba la ñu ñëw. te bu ñu paree dañuy delluwaat ñibbi moo tax il faut ma gaawal affaire yi. waaw waaye taxul tamit yëmbal jege ndax boo yëmbal tamit fekk naa ko Gàmbi muy préparer combat bi ànd jeg ay mbokkam ànd jeg ay xaritam ànd jeg ay njagañaaleem ñoom ñaari xale yi bu ñu sumee ko ku ci nekk boo leen xoolee xam ne liggéey nañ ci combat bi Mor Kang Kang liggéey na kenn waxatu ko booy yëmbal liggéey na kenn waxatu ko en tout cas dañuy xool ñoom ñaar. fan la ma wànnati du mu jékki gëtëng boo yëmbal mu ngi mel ni ku ko ragal te ragalu ko Mor Kànkang ngi dox ci kaw muy reculer ndànk ndax Mor daa foor ci wàllu bëre ndax bu jàppee day bëgg combat du jeex te yëmbal tamit moom it dafa aay ci wàllu bëre ñoom ñaar ñëpp xeex du seen foor muy boo yëmbal muy Mor Kànkang Ousseyn. ñoom ñaar ñëpp bëree seen foor boo xoolee li ñuy def ne buñ jàpp bëre feeñ ndax ay naanaanu bëre lañ boole tay bàyyi ji li Fallou Ndiaye li mu def tey juumul. mooy li ma la waxoon sànq nee naa mooy demi final bi dafa am Ada Fass mooy final bi bàyyi ji li. troisième mën naa am. xale yaa ngi noonu ci digg bi di lewaatoo moo kan kan koy topp woowaat ko ci digg géew bi bëre day leer ay xale lañu war a bëre waaye buñ jàppantee bàyyi ji li feeñ moo kan kan boo yëmbal boo yëmbal nga mel ni ku ko ragal waaye jegewul sax ku ragal boo yëmbal boo yëmbal moo kan saan ñoom ñaare ngi noonu Mor Kankang li mu bëgg mooy Boy Yeumbeul ñëw Boy Yeumbeul da koy wan dama laa ragal bëgguma ci combat bi dara jël combat bi bàyyi koog Mor Kankang Mor Kankang da koy téye wala da koy delloowaat ñoom ñaare noonu Mor Mor mépp na Mor mépp na Mor mépp na ndaysaan Mor mépp na bi. Mor Kankang daa bëgg a bëreeg moom ci digg géew bi ndeysaan boo yëmbal def na lu garaaw waay def na loo xamante ni loolu la mbër war a def ci biir géew ndax am na geste bu mu def mbër bu laal suuf noonu la ko war a def geste boobu di ngeen ko xool ndeysaan ñu ngi noonu reculé na avertissement boo yëmbal arbitre bi sifflé waat na Ndeysaan arbitre bi sifflé na Ndeysaan moo Kan boo yëmbal ñoo ngay xoolante ñoom ñaar cong amagul jàppanteeguñu dóoranteeguñu moo Kan Kan boo yëmbal moo Kan Kan wàcc na ba tolloog moom mu ngay bëre moo Kan boo yëmbal dañuy daje ñoom ñaar ndax boo yëmbal di mu sampee tànk bi boo ko xoolee xam ni daa bëgg a dem Ndeysaan Mor Kang Kang boo ko gisee moom it nga xam ne attaquant la gis nga jëli na ko da koy daan daan na ko daan na ko Mor Kang Kang daan na boo yëmbal. Mor dëgg Mor rëjëx rëjëx Mor mbëndax mbëndax Mor rumpi dem dëgg ndax Mor Kang Kang a noonu Ndeysaan ñii ñoo indi Mor Kang Kang ñii indi Mor Kang Kang ñii indi Mor Kang Kang.